Leben! Mm. Leben! Mm. di nga maam góor da doon voyagé ne maam jëm Kaolack jóge jóge Dakar dugg ci oto bi ak benn tubaab di nga maam biñ demee ba oto bi ag di nga maam hauteur de Fatick rek ndeysaan tubaab bi xam naa rek fii coono rek tubaab ne oh là là quelle fatigue ngóor euh. ndekete tubaab te xol bi loolu naqari na ko nag moom itam bëgg a affaire bi dem bay waaj a dugg caajaay rek góor na day fudd woo tot tot tot ooy <laughs> dégg millions ci làmb ji dégg nga maam dégg ñoom yëkkani ay cent millions deux cent millions ki Balla Gaye rek ngóor na day dugg ci làmb ji day bëre mbokk yi wax ba son mu ngóor na day bëre ñu ne am na mbër mu rëy léegi saa ngóor la tudd ndeysaan mi ci làmb ji ko ñime ñu tëgal ko combat ak benn mbëru bambala boo xam ne da ngaa mat na ñetti Tyson ak ñaari Yékini ak benn bala Gaye bu ñu ko boole noonu la mbëru bambala bi tool te dóor rek la mën nag moo moo raw takk ci ñu tëggee ko ndeysaan combat bi ak 400 millions yóbbu ko stade amitié arbitre ne prét ngóor bi dem bay léewtoo rek bambara commencé dóor tuy tuy tuy tuy affaire yi de ngóor ne eh arbitre sur place arbitre bi na lan la mun ko waaye damaa bëgg dégg maam nga wax supporter yi comme mbir mi am foo dong la waaw jaru ñu may sànni xeer bëgg dem dong lañ ci sànni xeer dégg toj bopp bi waaw kon nag bu fekkee da ngaa ànd ak sa nag ah, waroo fi di di sànni xeer dégg nga man ma sànni bi dóor rek moo la métti ay bëril waay prét dégg nga bi di dóor ngóor di arrière bambara bi dóor ngóor di arrière ba gën stade am ci bambara bi dóor ba dugg dégg nga maam bambari bi di dóor mbóor di ari ba dugg ci kër jàmbur bambari bi di dóor tuy tuy mbóor di ari ba dugg ci nguuru xar yi rek dégg nga ma borom kër gi yow eh qu'est-ce qui se maison lu xew foofu koo kan la da ngóor ne waaye ñun la mbur yi mu ne ko mais qu'est-ce que les mbër font dans maison là lu fi mbër yi di def mu ne ko waaye bu laa mu joxaatee nag boobu laa fa jógee hmm?